إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين noogi sant sunu borom subhanahu wa taala di julli jàmm yonente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noogi gërëm yàlla mi mun a defalaat tawfiq ba ñu dellu si waat ci ron keppaar xam-xam di waxtaane saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni ko xamee sunu bind benn weer ñoo ngi nekkoon ci dundu kenn ci soxna yu mag yi nga xam ni ñoo nekkoon ci ren kebbaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooka mooy Aïcha ummul muminin Aïcha ummul muminin dafa mel ni lu mat ñett ci ay bind wala ñeent amagum nañ ko ci dundam kon ba léegi ñu ngi continuer di fàttaliwaat rek li ma doon wax ni Aïcha radiallahu anha dundam ci boppam dafa fees dell ak ay jàngale maanaam ballukaayu ay jàngale la rawatina ci biir néeg yi sëy dundu Aïcha ma nekk ci jël ay bind yu xóor ci góor nan lay yoree ay soxna bu fekkee yàlla daf ko war a dëggal ci biir kër mën nañ ci jëlee ay bind yu xóor lu ki mel ne nekkati fiiraange ci boppam yàlla subhaanahu wa taala ko moo ñaaleeg jigéen ñi kenn mënu koo bañ ëppal jëfet moo yéen daan ci jànge ba léegi ni képp koo xam ne da ngaa bëgg kër gu du yëngu kër goo xam ni coow du fa am xamal ni bëgg nga kër gu gën kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak yooyu yëpp ñu xam ni noonu rek la mën a demee ndax kër yonent bi sallam ballukaayu ak njàngale la moom mooy ballukaayu ñu dugal إن الإنسان تعمل قصة العقل قصة العقل كيف توجيها أكثر حول الوطن ربنا تقي القرآن قصة دي أكثر حول الوطن ربنا تقي القرآن بنين قولي صار ديك قبل وصول التحريم أجنان ولا يتنك بكيك إن شاء الله ربنا دينا محمد آية لم تكن ولد في القرآن waaye ci sëb yii borom téere mu ni wa hadihi xiilatun wa laabatun latifa qaalat biha ummuna aishatu wa sawdatu radi allahu anhuma mu ni lii am fexe la am fexe la ab kompaloo boo xam ni ay soxna yent bi ñoo ko laloon ci biir kër yonent bi sal allahu alayhi wa sallam lii nag moo Aïcha ak Sawda waaye kooku loolu dafa faram-fàcce bu soxla ñu ndax loola mi def ab xiir la waaye mënut a ñàkk ma borom ko ci li tax mënut a ñàkk ma borom ko ci mooy xadis bi dafa ñëw ci ay riwaayaat yu bari boo demee ci seen xay am na riwaayaat yoo xam dafa ne Aïcha la ak Xafsa am riwaayaat ne Aïcha la ak Sawda am yu wax ak ñeneen kon ñëw na ci ay riwaaya te yii may wax fii ci Buxaari sax soxla moo tax léeg-léeg moo yemee ci benn bi bu ñu la defee ba tey dinañ di kooku kee rek ahan kay ñëw na ci ay riwaaya loolu nga bàyyee ko xel mënul ñàkk ñu war ko ci Aïcha mooy nekk ni te xew-xew bi am njàng tamit mi ngi ci xew-xew bi am njàng mu ngi ci mooy gis ne jigéen nu mu mën ci mel ak nu mu ragal ragal ragal yàlla jigéen fekk na faaw rek ñu jëmi jigéen léegi nag góor gi jël ab jigéen jàpp ni moom dafa am ku mat koo xam ne yenn ci xeeti njuumte yi du am ah su boobaa nag bëgg naa yëngal kër beneen ci des moom mooy bu ko jombale mukk lay Aïcha parce que jigéen jigéen la faaw mu def jigéen jigéen Aïcha mu ni yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkoon ko xam dafa bëggoon lem dafa bëggoon lem lool nee na dana nekk ginnaaw kaat saan bu ne xam ngeen yonent dafa amoon ay soxna léegi ci bi dafa am ay soxna fukk ak benn wala fukk ak ñaar bu ñuy faatu juróom-ñeent fukk yi ci li gën a wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yi ñu tuddee al xisma muy séddale ay nekkul waajib ci moom comme ni ma ko leeralee woon ci bind bi wees donte am na bu ci borom xam-xam yi su ko defee ginnaaw kàddu taan comme yonente bi amul woon lu ñuy tuddee kër comme ni ñu ko xamee ñun ñu ne kër yonente bee nga ne de ay xujuraat la amoon inna alladina yunaadunaka min waraatin xujuraat néeg diw néeg diw néeg yeneen am na ko su néegu gën lay nekk day pare sax ñi seeni néeg nekk noonu la yonent bi amee woon kër sallallahu alayhi wa sallam moo tax boo déggee yonent bi amul woon kër nit ñi dañuy yéem fekk am nga amul woon kër ay néeg ak la woon yonent bi dara def bu jullee kàpp saa ba dafa léeg-léeg bu deful dara day dugg néeg diw su paree génn dugg néeg diw su paree génn dugg néeg diw daal di wër ñi nga xamante ni ñoo ay soxnaam ñëpp benn bi mu daan dugg ci nekk Xafsa doomi Amar bin Xattaab léegi nag bi mu duggee nekk Xafsa xam na dafa xaw a yàgg nag gis nga jigéen ñi ni ñuy seetloo mu dugg néeg yaay diw génn dugg néeg yaay diw génn dugg yaay diw waaye bu duggee néeg yaay xasta dafa daan xaw a yàgg nekk xaw a yàgg boobu nag am na lu mu def ci xolu soxna yi allahu akbar gis nga loolu dana bëgg suñu kër yi ni jot dara di yëngu wallaay dañuy wax lu neexee dañoo bëgg li ñuy yeex moom fekk loolu du am li am mooy kër yéen saxal su fekkoon am na yenn kër bu dul yëngu bokkaat léegi soxna yi am na affaire bu ñàkk ñàkk mu def seen xol Aïcha nee na ah ba xiir too xiiraa gi am na dugg si nag mu ne fa saaltu an daalik ma laaj waaw lu xew gis nga rek bu commencé contrôle waaw lu xew moom yàlla lu mën a nekk gis nga du lu nit gis nga moo tax na jigéen jigéen rek lay doon di lu nit lu nit ba am benn information ñu ne ko moom kat benn kenn su mbokk bi dafay ñëwoon tey may ko benn gàmbab lem may ko benn gàmbab lem te ku ne xam ne yonent bi daa bëggoon lem sallallahu alayhi wa sallam léegi nag xam naa yeneen ci dëgg am lem ba mu fekk ak naan dem wala bi xam naa ci doon xalaat yeneen fekk moom lem ba mu doon naan doon ko ko bàyyi léegi Aïcha nee na mu ñu amma wallahi la naxtaalan na lakum kii danañ ko fexeel tey xool yonent bi lay waxal moom yonent bi moo nekkoon morom sallallahu alayhi wa sallam mu ngi kii wallahi daa ko fexeel tey léegi nan lay def mu daal dem ci sawda xam nga sawda mag la woon moo ko gën a Aïcha beneen bi ci des mooy aay dafa xawoon a nekk baax bu tuuti xaw a bari affaire ndax gone la woon taw na xaw koo ragal ak xel bu ko defee léeg-léeg nag lu mu ko wax rek dafay def lu mu la ko def rek donte aay bi xaw naa xam lu mu ko digal mu def ko mu daal di koy yow ñëw mu ni ko yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne xasta la génne te am naa xabaar ne lem la ko lekk gis nga bu yegsee sa biir néeg da ngay toog jege ak moom rek dafa war a doon te looy yëg nii nga mun ko da ngaa xam nga looy ñeent ñi yonent bi ne ah xëy na ma dara kay mu ne ko déedéet yow kay yow xel mu xel mu xetaw xetaw mooy déedéet ci sa gémmiñ ndax xamoon nañu yonent bi daa bañoon xel bu naqari sallallahu alayhi wa sallam léegi dañ ko bëgg a découragé la ci nekk ci yàlla xoolal ndax yi mu ne ko ah yow dañ dem yonent bi li ngay xëy daa mel ni maxaafir waay maxaafir benn garab la ku neex a nekk waaye xet bi bu la xëy rek nga suuf xam nga am na yoo xamante ne xet bay neex waaye ñam bi néew kii nag moom ñam ngeen neex waaye xet bi naqari bu la xet bi jëkkee seen moom suur yonent bi dugg nekk saw da ah saw na mën waaye yonent bi damay xëy ah yow de yaa ngi bëggale sama néeg yow yow mu ne ko mooy lem de mu ne ko déedéet yow kay li nga def comme magaaf yi yonent bi ne ko déedéet lem kese la def moo ne nekk xam nga daa ko naawee mu ne ko déedéet xanaa kon loolu nekk la arab la moom ñu neen ngeen garab la mel noonu maa commencé di ko xanaa nangam la xanaa nangam di ko wàññi ko xet bi dafa naqari ndeysaan yonente bi am lu ko nekk ci xol bi ndax dafa daf doon ku amul cet bëgg gëstu ba nga xam ni dañ koy gis ne ñii lañ leen si yaram dañuy wax ni léeg-léeg day jaar ci kenn sax nga jaar ba xam ne yonente bi jaar na ci tey ndax xale yi ñuy nuyoo xale yi ñuy xam da leen di bàyyi ñoo xet farfon seen yére yi sallallahu alayhi wa sallam mu dugg nekk ay sa ay sa ni oh fii muy xëy ni yow de yaa ngi ubbali sama néeg yow xam nga daa nekk ma baax mu ne moo ne toll man ma wax léegi waaye loolu amul ci mu ne ko kon kay wax na dëgg waaye gis nga ndeysaan di ko découragé la sallallahu alayhi wa sallam loolu rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu mu dem ci soxna yi rek mi ngi jógee ci Aïcha ah mi ngi jógee ci Sawda wax ko loolu mu nekk ci Aïcha wax ko loolu ah mbir mi daal di bëgg a nekk nag loo xam day bala di nekk dëgg nag loolu nag yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daal di jamaat nag ci Xabsa li ko Xabsa joxee lem bi mu ne ko suur na doy na am na ñuy wax ne loolu mooy sababu aaya ji wàcc yaa ayyuha nabi li ma taxarrim ma axal allahu lak donc yeneen yoo xam ne am na ci ndax am na yeneen soxna maa rek mu saptiyoo la woon loola bind saptiyo la incha allah waaye li ma bëgg a wax foofu rek mooy noonu lay naan taw ah xam nga neexal neexal yonent bi rek xam naa képp na xale ñu ko bu fekk sax ay naxe rek la woon ndax fii naan bi yonent bi ne ko laa aajata li fii tey amatu aaji baax na taw la ngay tànn comme daa xaw na ragal tuuti mu daal di xaw a am lu ko metti mu ne mu ne Aïcha ah wallahi laqad xaram naa ko liñ def bëgg na de ñoo ngi ñuy tax ba yonent bi nangootu la daan dem xultu laxa uskuti mu ne mu ne ma ne ko yow tëgg si mi ci laaw ngay am looy wax te xoolal taw daa ko mag ba mën kaa jur mu ne ko yow uskuti tëgg si mi ci laaw te riwaaya bi riwaaya bi mi ngi ci Buxaari mi ngi ci Buxaari mi ngi ci Muslim li ma doon foofu rek moom mooy maanaam kiiraay bi jigéen ci boppam lu mu am la gis nga ñoom ci seen biir ñu mu ñëwee ci dara dara dara gis nga benn mbokk mas na ma wax jazakallahu kulla xayr bi ma nekk damaa bëgg a jël beneen soxna mu ne ma gis nga bu xamee beneen soxna danañ la contrôlé ba léeg-léeg dañuy xool sa ñaari daal la bi ngay dugg néeg jiw ndax da ngaa ubbi sa ñaari daal si bunt bi ak néeg jiw ndax boo koy dugg da ngay ubbaale say daal ak wax dëgg gis nga yëpp daal li ñu neexee wala yëpp lu ñuy contrôlé dañuy mel ni kiraaman kaatibiin al ard di la topp kii ngay naxal kii ngay leeral kii ngay léegi yow danañ la topp ba topp la ci loo xam ne yow da ngay yéemu sax ci yàlla xanaa naa xalaat ma ay kat rahman sax ndax fekk danañ toppee nit ci loolu loolu ngay naan fekk loolu lu tax parce que jigéen bi ci boppam la yàlla bindee biir dëgg la nag ëppal caa yéen ëppal caa yéen gis nga bunt bi nag ci laa waxee wax yi ay mbir yu doy waar moom am ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga jigéen ñi ñoo ci seen biir di waxante ay wax ah gis nga góor gu dëgg mooy góor boo xam ne doo xaare loolu gis nga boo nekkee dëgg dëggal di am ay coow kii naan yàlla kii naan maana da ngay nelaw ba yàlla bul faale loolu gis nga soo bëggee nekk di ko faale gaaw a màggat nga def léegi loolu kër bu ne lay am kër yéen sax la lu ne dafa doon am ma jox la ci ay yeetaan gis nga yonent yàlla sàmm doon na ay di jëw xasta hey xasta day def nii di wàññi na ko gàttal xoolal ci soog naa defe naa ngay soog ba yéen ñu waxoon xolam boo benn boo Safiya bint Xuyay xam ngeen moom aw askanam ak yahud yi leen bokk waaye nag yàlla def na aw askanam boo ko toppee ba ci yéen ci yàlla Isxaaq la benn bis dafa def kan Xafsa defe naa Xafsa la defee su fekkee juumoo ci xisa bi mu ne ko waaye tuutal ko la waaye doomu yahud bi nga doon gis nga mooy la Abu Dar waxoon bi la la Abu Dar waxoon bi la waaye gis ku ñuul ci nga doon doomi ku ñuul ci nga doon gis nga mu ne koy tuutal ko ne waaye yow amul borom am comme jàppante diggante borom borom rek mu ne ko yow waaye doomu yëgut bi nga doon ngay def mooy doomu yëgut wax dëgg yàlla métti na ci xol mu toog di jooy ba yonent bi fekk ko sallallahu alayhi wa sallam yonent bi laaj ko lan la mu wax ko ne ko Xafsa moo ma toog ndax moo ne ma doomu yëgut wax ci métti ko xool yonent bi ne ko loolu mer yow sa baay tax ab yonent la sa sa sa sa sa frère ay frère ay yonent lañ tey ab yeneen la muy ñetti mbir yi daje ci yow yow kay yàlla defal na lay fay te loolu bu ko waxee daa xamee ndax boo toppee aw askanam ci yàlla li ci ma la wax yéen ci yàlla yooyu la bokk la bokk beneen bi ngeen moo yéen ci ak na sallallahu alayhi wa sallam ne kon lay mel ñetti mbir yoo xam benn bu ci nekk da ngi jeexee ci biir kon yooyu ay mbir la yu doon am kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amaan na xista yi may nekk ni wallahu aalam mi ngi amoon balaa yonent bi wax ni kuy kaf da ngay kafee dëkk xam nga saxaaba yi xamoon nañ ni nit buy wax yow dëgg waaye nag kaf ci nit da ngay kafee dëgg gis nga pour mën na naan jigéen ci benn fexe mu nekk dana ko def pour rek moroomam na koy xew yow nga yéeg benn bi xaf sax ah taw na dafa dafa dafa dem mu faskelu makiyaasu dóor ay affaire yooyu dóor dóor dóor ba kanam gi rafet ngay taal ñaar ci soxna yonent bi Aysa kenn teg li ma gën a yéem nag mooy xista boo dem rek loxol Aysa bi tegee sallallahu alayhi wa sallam ci ay ay ay ay ay ay ay ay dund biir këram Aysa radiyallahu anha li mu gisee saw la mel noonu mu ni kii xam naa bu ko yonent bi xoolee xelam dina dem ci moom xaaral ma fexee la ci ko te gis nga nag loolu lépp nag doon eel bu ñu jàppante ne ay kaf la woon rek ay kaf la woon seen biir loolu tamit nga bàyyi ko xel xam nga ne ndeysaan Sawda bu ragalam yàlla la radiyallahu anha ñu daal di koy ñuy kasab moom daal di koy nax xam nga nax gi lan la ñu yegg-yegg ci toogam yàgg rek ay ak kii mu toog rek soxla yooyu ñu bëri saw dugg ci biir néeg bi tëj Sawda la ñu ne ko ay ma kii ma jàll génn ndeysaan mu kii daal di koy gëm daal di koy gëm ci xool xool xool am na fu mu jëm te am na benn ngurdu ginaar bu nekkoon foofu ngurdu boo xam ne def ko lim jël lim jël lim jël lim ji ba mu digg ni ba ci biir ndeysaan daal di laq yéen ci yeex ci daal di ci sallallahu alayhi wa sallam daal di koy fàq lan la lan la ñaar ñi ñoom ña ngay reetaan ba kenn xamul mbir mi nu mu root ci la doog a xam ne nekk dañ ko doon nax xista boobu nag may wax ni amaan na wallahu aalam dafa fekkoon avant yonente bi jàngale parce que lii lu yàgg la ndax fekk dafa taw rek tàmbali dund Aïcha bi boo ay si rek gone kon laal la amaan na balaa yonente bi jàngale ci la yonente bi xam ne daa kap kat da ngay wax dëgg maanaam sañoo kafe loo xamante ni amut kon yu mel noonu dama la bëgg xamal dafa bari woon kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay waxante yu baax kii naan yaa ma ko kii naan maa la ko loolu moom bari woon na kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam man diggante ah xëy na fi ñu jax ak gaay yi dañuy gis naan eh man kay suñu kenn yonente bi kenn féetewu ko man kay nag ku nekk rek yëngat sa place xëy na fi jax leen man kay maa ma féetewu ko kenn féetewu ndax yéen ñëpp seen i bàyyi ak seen sëy ba mu des man man ca arab lan la taxee bu doon am na guróoma ni jibril la ko doon indi yii la ko doon waxee mu ni ak wastafiru huwa jibril kan yamala ko jox tey ba mooy jibril kan kan ci yéen mooy koo xamante ni ca kaw arab lan la taxee xam nga loolu am na fee di jax yàlla moo ko may yàlla moo ko may yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ni yéen ñëpp seen bàyyee takk seen a sëy man def man man suñu war a takk saa sëy ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam kenn ku ci nekk dana conférence ak seen morom kon li ma bëgg a foofu mooy ñu xam ni maanaam mbir yu mel ni daal am kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam donc bi mu ne xiiratu Aïcha bin Xadija radiyallahu anhuma fiiraange boo xam ni Aïcha dafa doon fiire yonent bi sallallahu alayhi wasallam fiire Xadija moo tax al imam Zahabi al imam Zahabi alayhi rahmatullah moo delloo siir A'lam an-Nubala bi mi tarjamal Aïcha dafa wax su am solo imam Zahabi mu ni inna hada la min a'jabi al-ashya musuma gis lii imam Zahabi imamul a'immati fi siyar muy inna hada la min ajab al asya lii ci li gën a yéeme ci àdduna la bokk mais ba muy di fiire di fiire bay fiire koo xam ni fekkante wu leen ba muy dee juddoo ko mu ne loolu kéemaane la bokk na ci li ko waral mooy Aïcha radiallahu anha yéen tamit Xadija yéen tamit da ko tudd lu bari léegi Aïcha mu ni ma xirtu ala ahadin min nisaai nabii sallallahu alayhi wa sallam ma xirtu ala Xadija awma ku ma mas a xiire ci soxna yi yonent bi ma mel ni waaw alimam zahabi mu ni maanaam kéemaan moom li ko def kéemaan mu ni naka la Aïcha mën a fiire fiir bu tarkat yeete fiire yu ko nii loolu la tuddee demee en dugg achia mu ni fiire ki nga xamante ne ñim dundal la war a fiire waaye mu ni fiire kat yee fiir boo xam ne moo gën a tar jëm fiire ñuy dund Aïcha mu ni musuma fiire kenn comme ni ma doon fiire Xadija ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni wa ma raaytuha te far sax musuma kaa gis kon nit musul gis sax Xadija mu ni waat walakin kaana rasulullah yakturu wa yuksiru dikraha yéen yàlla da ngay borom bari lu mu tudd Xadija te gis nga jigéen ñi subhaanal malik al qudus loolu rek lañ gën a bañ loolu rek lañ bañ moo tax borom xam dañuy wax ni sa qualité yi beneen soxna bul ko di wax sa beneen soxna di ko dégg borom xam-xam yi wax ci al muskilaatu zawjiya ah xam ne def na ci ñetti kase ci mbir yi nga xam ne day am ay jafe-jafe bokk na ci yi ñuy réglé solution yi mooy yenn qualité yi nga xam ci jiw bul ko di wax bu jiw tool parce que loolu bokk na ci li mën a yëngal kër doonte defoo bàkkaar waaye nga xamal ne ci li mën a yëngal kër la bokk góor ñi nag léeg-léeg dañuy taali nga jékki-jékki rek li gaa sama sama jëfur jëfur lañ koy tuddee léeg-léeg koo xamante ne nga defal ay affaire rek mu kontaan di mu jëfur di wax rek bu ko defee loolu lépp day indi ay jafe-jafe ci biir kër yi moo tax mu ni wa rubama dubiha saatu summa yaqta'uha a'daa'a mu ni léeg-léeg sax dañuy rey am xaar ma gis leen bi di ko feñal man xaar waa kii lu mu nar a mu ni mu di ko feñal di ko feñal di ko feñal fan la ko jëmee fii fadaa'il Xadija ndeke wëllëri Xadija yi la koy jox allahu akbar tànk bi ak bàjjen bi xaritu Xadija la ñu woon bu reyee am xar bu njëram këram da cay dagg ay tànk ki di wax di ko yëpp xari ci xadija ya ndax rek kooku xadija wa hunaka waqfa wa in shitu qultu wa xafaat foofu nag am na waqfa wala ay wa xafaat mooy xadija yi da koo liggéey de foofu nag jigéen ñi laay waxal lii xadija da koo liggéey de boo déggee ñu naan yéen si fekk ko rek loo ko nangam dëgg la yéen si fekk ko rek kenn du ci teg baat waaye xadija ko liggéey bu ci teg baat Xadija radiyallahu anha dafa wet ci woon dafa gëmoon yéen si bopp nit ñi wettee mu ànd ak moom bi ko nit ñi tonkoo mu jox ko alalam Xadija mooy borom kër su bëccëg jotee léegi lu baax la may wax Xadija mooy doon borom kër su bëccëg jotee ndax lépp lu góor waroon defal soxnaam Xadija koy defal yàlla bu guddee Xadija nekk sax nangul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëggul melentaan bi yéeg ci kaw wa sallam yonent bi day ne la way ñaq mu tiim ko di ko ko fonkal tay jooy parce que bëggul sax mu ñaq sallallahu alayhi wa sallam ah waaye nag dama ne al jazaau l ixsaani illa al ixsaan dama ñu ne ku la yàqal boo toggee yàqal ko kat bu dee ko rek xadija radiallahu anha daf ko liggéey moo tax it yonent bi wutal ko wut te da ngay dégg ku naan man bëgguma wuti bëgguma wuti damay melal ni xadija xadija damay daa kee doon jël seen bi déglu baax na xadija daa weesoon jël seen bi amul ma toog xadi ko woon moo tax yonent bi amoon ko moom kenn ku ma wax ji ndax leer na wala déet xadija daa weesoon jël seen bi ba amul xajal ma toog ah yonent bi damay nekk nag yow bu dee alal bu dee ci kaara yoo xamal la ñaar xadija moo ko yonent bi waaye taar nga góor yi doon toppee xadija dafa taaroon ba ngaan kat la ndax loolu la ko ay góor doon toppee ñeenti ko toppee alal ji dëgg la moo ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tawku yonente bi sallallahu alayhi wa sallam magee yonente bi fukki at ak juróom ba pare jël ko def ko sang bi man sax dama la wooyee sang bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah kon nag damay wax ni la waajaloon wax rek li la ko dégg génn góor du toog naan fii man de su may takk soxna dama bëgg soxna su mel ni Fatima nangam nangam benn borom xam-xam Mahmoud al-Masri mu ne ida arata Fatima takun aliya ah boo bëggee Fatima da ngay dem dox ak nekk Ali kat wax na dëgg de boo bëggee soxna su mel ni Fatima da nga dem yar sa bopp ba mel ni Ali naa ngi Fatima waaye da ngay mel ni waa ji mel ni man ba pare nga dem Fatima laa bëgg ku mel ni Fatima muy ah déedéet loolu du sotti moo tax mu ni ka annahu lam yakun fi dunya imraatun illa Khadija mun yonent bi dafa mel ni adduna yëpp kenn ñëw fi jëm ku dul Khadija waaye ni may def ah waaw ndax lu tax Khadija da koo liggéey mu ne fa yaqulu innaha kaanat wa kaanat wa kaana li minha walad mu ne bala ma am lu ma metti rek ma dégg yonent bi commencé dina ah yéen mooma lii mooma laa mooma lili mooma lële la ci digg yonent bi jiglu ci nag yonent bi dafa doon fàttali ku lu bëri waaye lu ko ci jiglu ci loolu nag xam innaha kaanat wa kaanat Xadija moo doon nangam mooma nangam mooma nangam maag moom atam jiw atam atam nangam atam gekkoor ma maag moom atam at ma dëgg ma ñëwul ah maag moom at ma noom embargo yi maag moom nangam maag moom nangam kayit sax moo jur samay doom lii nag exemple bu rëy la bu lay wax ni yeneen bi ak dundam lépp ay jàngale la gis nga jigéen ci nga jurali doom waaw kooku am na fu mu lay yegg koo xam ni bu rëy lay doon koo xam ni boo ko fàcc bu même bu faatoo moo tax wa kaana li minha walad ah wa kaana li minha walad tey si moom laa amee woon ay doom Aïcha radiyallahu anha ni istadanat Haalat bint Xuwaylid benn bis Haalat bint Xuwaylid dañu kon kon Haalat bint Xuwaylid lu mu bokk ak Xadija ñoo bokk benn baay ñoo bokk ndey ak baay Haalat bint Xuwaylid Xadija bint Xuwaylid kon Haalat tuuru Xadija la woon Haalat benn bis daa jékki-jékki ni kon kon allahu akbar bi mu ne koŋ-koŋ asalaamaaleykum nekk baatu xaala ak baatu xadija dañu ñëw woon waaw fekk yéen ci biir affaire mu ngi xoolal affaire yi waxal allahumma xaala bokkal xaala daa ci jiit fekk Aïcha bi toogoon Aïcha yéen radiallahu anha yéen ci biir sànni bi rek allahumma xaala jub rek waxal yére yi daa daw ubbil ko mu tibi bismillah yegg commencé di wax ay wax Aïcha moom day sax daa gaaw a mu ni fag ñett ma fii moom di leen lekk rek xararam yi dellu si mu ni famille su ma laa di biir fa qultu ma tazkur min ajuusin min ajuusin min ajaa'ibi qurayshin xamraa sidqayn halakat fi dahri qad ablaga allahu xayran minha moom waaye bala maa bëgg a dee rek ma naan ay xarija xarija yow nag ngay nekkee tudd jigéen joo xam ni ba mu àll ko wala xandi mi wax ba mu àll ko kenn xamul kan la li xam màgge bu xonk loolu voilà ñi nga xam ko gisal gis nga jigéen jigéen rek lay xam raa aussi ba xëy moom mi ngi melal koo xam ne gisu ko mi ngi naan ko lekkam yooyu rax ba xonqaay ba nangam wax ay wax te gisu ko sax tam yow koo gisul noo koy xasee bay xam nu mu dem lii yëpp kii rek ko waral waaye dañ ko ko accepté na ndax moom la bu yàlla moo ñuy jigéen ñi fitra Allah yi di xoxaral ni daa amin gis nga moo tax mu ni qad abdalaka Allahu xayran minha yàlla remplacé na ku la ci gën ci benn riwaay la am na beneen riwaay gis nga keroog ba mu nee ko yàlla remplacé na la ko ku la gën yonent bi dafa giñ ci yàlla ni ko wallahi yàlla remplacé lu ma ko ko gën allahu akbar kon Aïcha li ko yonent bi bëgg bëgg bëgg li ko yëkkati yëkkati ba la ngay jéggi day wax ko xanaa sax kat na gis nga mu ne ko yàlla remplacé mu wax wax wax wax ba yeggal Aïcha nee na yonent bi mer na ci loolu weer ba dama miséroo ñu bii yoon moom bis bu ma fexee ba mu nekk dootu ma waxati mukk lu ñaaw jëm ci xadis waaw gis nga góor ñii lay dal ngay bari kaf bari ay ubbeeku nekk yomb mbaa naajo mbaa nane ci say karam yi soxna waaye nag da nga am xeetu joxoñ boo xamante ni boo ko joxoñee rek ñëpp ne noonu góor gi ne noonu lay dal da ngay am ay bagage yooyu denc da ngay kaf ubbeeku nekk ku yëpp koo xam ne ñëpp a lay ñemee waaye nag da nga am xeetu joxoñ ak xeetu bët yoo xam ne boo ko xasee xulli rek ñëpp lu waaye doon def na dana yem loolu lu ma jublu mooy fi ñu war a nooyee ngay nooy waaye fa ñu war a dëgër nag danga fa nekk góor dëgg yonente bi salallahu alayhi wa sallam doon na def léeg-léeg bu ràññee ab gàtt mu ne arsilu biha ila asdiqaai xadija seet ngeen kuy xarit ab xadija rek ngeen jox mu ne fa axrabtuhu yawman benn bis nag Aïcha ne affaire bi ñetti ma gis nga riwaayaat yëpp bokkul mu ne ma ma ma merloo ko ma merloo yonente bi ni ma ko merloo mooy fa qultu xadija moom waaye loolu xadija nga naan xadija yent bi ndeysaan ci yar beeg noppi geeg dal geeg mën a jàngale mu ne ko Aïcha tey ngaa def naan inni ruziqtu xubbaha gis nga kii bëgg gi ma ko bëgg yàlla ma ko wër bëggalee mënoo ci dara Aïcha doo ko xam ne ah xadija nag am na makaan foofu nag waxtaan yi may joxe bokk na ci mooy jigéen ñi nañu xam ne gis nga góor di nga ko yore jéggal ko yërëm ko yiir ko dimbali ko jàppale ko suturaal ko di ko xelal di ko nëbbal ay ayibam sa am am mooy am amam lam am nga di ko ko sakkanalal waaw xanaa am dox ngay jëfandikoo ngay jëf lan jéem mu beddi la mu botti la boobu waaye bu dee nit la sooga moom nga xolam borom xam-xam ne dañuy wax ne jëkkër akub xale ñoo bokk yem saaf saafal nax naxal jox mu lekk ba suur tëdd ne la xalaat wax nañ dëgg de loolu moom ibaara bu dëgg la jëkkër ak xale bu ndaw saaf saafal neexal jox mu lekk ba suur nelaw rek doo am benn problème kon jigéen ji ci boppam ci ko yàlla war dëggal muy jaamu yàlla ci moom yow ñu ne tey jigéen ñi nga koy fay ah neexal gi ngay neexal sa jëkkër sax bitte na mu nekk nañu jiyaaw wax dëgg yàlla lii neex na waaye lii moom daal faw rek kàddu yi naqari di jóge ci ak gémmiñ di ñëw ci nopp mel ni bal xeex ci dënn faw rek dafa mel ni daal man daal jàngat gi ma ko jàngat dafa mel ni li ma jox daal mooy jigéen ñi dafa mel ni daal naqara si doon kër yi da leen neex wallahi rabbina yàlla seet na ne man jàngat ma ci def loolu la dafa mel ni jigéen ñi ci boppam naqaral seen borom kër mooy énergie bi tax ñu mën a dund yow boo ko defee am ci àddina am ci àllaaxira am ci yàlla am ci jëkkër lii kay neex waaye déedéet faw rek ay kàddu yu mel ni ay bomb di génne ci gémmeñ di jëm ci dënd moo tax loo ci gis lii sunu mbokk mu def kenn waral wax naan gaaram place boo dem góor ñu gën a bone jabar ñoo koy mucc aka wax dëgg mu ne gaaram place boo dem góor ñu gën a bone jabar ñoo koy mucc da ngay wàcc jaar ci waxtaan dem kër bàyyi di mu fekk sëb na nga dem bërkaat ah koo jëma ci nga xam ne dem sa kër doom parce que bu yeggee dafa ay naqar doo ko fay ala jàll jàll ci jaaram ba waaye am na ñoo xamante ni dama dem ñu wàcc dañuy fërox fërox yàkkam tey yegg si lu tax parce que dañuy xam ni bu ñu yeggee dal dal fay fekk allahu akbar ñi koo xamante ni bu ko dalee sax ku lay def ba rek ñëw nàmb li nga yore ah dalal la sa gal la may la nga jàmm am jàmm ndax xale yi jóge leen fii seen bàyyi day nelaw maa ngi leen di sax moom dina lay yeelay wax xam nga yii moo tax yii am di am moo tax masak yi am ba jigéen ñi mel nañ war a mel ñu muut ñu nopp man ab mbokk nekk li na ma soxna mu ni ma bañ dalee ànd ba tey te kii ma wax ñu ko sax sunna de bàyyi xel loolu ba pare mu ne soxna mosuñoo jàppaan bi ak lu mu ndaw ndaw ndaw lu dul day dem sukki fële di raam di raam di raam di raam ba yegg jox ko ñaari loxo ni ko baax na lii jëkkër jéem a ko def allahu akbar benn mbokk yegg ni dama ne ma borom mu ne ma borom nga xam ne neex na te baax mu ne dañ suñu su jullee su jullee suba fajar ba dox day ñëw jox sëñ bi ñaari loxo te mu ne moo ko gis ak bëgg na daa baal ma mu ne ko baal naa yow na yàlla koy nii daal jóg dem bu ñu leen gis baax mu ñëwaat joxaat ko loxo xaaral ma ma kere ba mu baax ma ne xanaa ci jigéen aajana ñi ngay nekkali ko mu ne noonu la ko jàppoo ba gee jox waxtu julli mu julli su paree dana dem jox sëñ bi loxo xam ni ko la baal ma lii li hakada wallaay am na ñuy jaxase waaye am na ñuy defar de am na ñoo xam ne ñi nga fa nekk di say day fekk nan xam ni doom yu barkeel yi nag doom yu barkeel yi nag kursub ndey la ñuy wane ka kañe ci kursub ndey la ñuy wane sëy rawante yaay la arrivé baax ka doom yu dudd ya doom yu màgg ya léeg-léeg doom doom màgg dañuy wan ni kii yaayam da doon sëy li may wax nag waaye xuraafaat de wallahi waaye xuraafaat lii lu am la lii lu am la jamono yële baax def naa benn muhaadara maa ngi ko def muhaadara bi titre maa ngi ko def yan relation moo am ci diggante sëyin ak barkeelu doom indi ci ay tegtal ay xadis ak i aaya yu lay wan ne nekkati am na relation bu am diggante amin doom ak sëyin bokk na ci rek yi ngeen gën a xam wala baladu tayibu yaxruju nabatu bi idni rabbi والذي خبث لا يخرج الا نكدا حديث يرجع تخير من صوتكم كان لين في ngeen di suul seen aw jiw ndax ci def day rabalaa lekkal yi bari na de kon jigéen ji léegi ni muy sëyee day feeñal ay ay barkeelu doom da nga gis koo xam ni day màgg nangoo liggéey sonn li li ngay bëggee jaxee du am dara trop trop ndekete ndeysaan yaayam ko toll yaayam moo ko toll ba jigéen ñu baax ñooy ndugg di ndugg lu baax sa yaay daan na teggoo daan na fi woon am nduggam nduggam la mu war a duggee da koo yóbbu woon nag moo tax ba jigéen ñooy teggi sa yaay teggiwul gis ko xaaral kon loolu jigéen ñi bàyyi ci xel xam ni nangul borom kër gi dama ci am yàlla am ci borom kër am ci àddina ak àllaxira muy ñeent bi kon Aïcha radiallahu anha mu ni benn bis benn jigéen yoo xam ju ñuul jigéen ju ñuul xam nga arab yi dañuy faral di utiliser loolu lu tax du ci question xeeb la nag maanaam daara xam ni la rek comme ñun niñ naan ko gàtt ku jool ñun ñi ñëpp dañoo ñuul moo tax dañuy en général dañuy law su xeeb soos comme gis nga comme loolu ay xaar nga mandarga la rek comme ñun dañoo weexoon ku nekk seen biir yuul bu neex loolu lañ lay wax benn jigéen ci ñëw dafa ñëwoon bi ñu yegg teer ngay sax yonente dal di ñëw kasafu ko dal di koy dalal fii gis naa naa gis jàmm sant boo xam ne da nga yàgg lii ko xamee ay na ne ko waaw maa ngi def xibaar ayu lii mooy lan mu ne innaha kaana tadxulu ala xadija fii danañ ñëw di ñu seet ci ma xadija wa inna xutba al ahdi min al iman rafetal ni ngay sàmmee kóllëre ci ngëm yàlla la bokk moo tax ma koy tatagalee nii allahu akbar moo tax Aïcha li yem ci di faatu affaire bi marqué ko lu tax mu marqué ko mooy professeur bi gën a mag bi jàngal Aïcha ba jox koy diplôme mooy borom këram muy yonente bi saa sallam ay jikko yu rafet Aïcha ni ko jàngee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu bàyyi xel xiiraay yi ci boppam lu yàlla moo ñee jigéen la jigéen moom li gars yi li jigéen ñi faral di wax nee nañ wut ci moom daa méttee méttee métti ba booy boo koy wax sa ñaari suñu duñ daje loolu la wala kuy wax fekk déedéet lu métti amu ci yow yàlla da laa fekk day ngay taxawaalu fekk ma sàmm kenn muy taxawaalu beneen góor nekk fay taxawaalu yàlla la fexe ba boole leen ci ren benn keppaar ñu gën di jaamu yàlla daal àjjal yow kay la xamoo lu xew xal taf na tam daa dee gis bañ mu joram bañ mu mën naa tax doo julli jumaa yàlla bu ko nangu nga julli farata yàlla bu ko nangu nga woor yàlla bu ko nangu nga dikk tous doo baax ah jigéen ñi lañ dégg loolu de bañ mucc mën nay tax yàlla yàq sa jaam yàlla luy ko tegtal ma ne la yàlla mu ne dalika bi annahum karibu ma nazzala allah fa ahbata amal yàlla mu ne li sama yàq seen jëf noo ma garaat mu ne waaw mu ne ñoom dañoo bañ li yàlla yoonal ba far màbb yàq lañ jot a jëf lépp li yàlla yoonal rek mooy góor sañ na mu am benn am ñaar am ñett te bal sax man li may wax bis bu nekk benn mbokk nee na ma ne boo koy wax du neex jigéen ñi ma ne ah danañ ko wax de danañ ko wax nag de bu dee taw daan ko wax bu dee noor daan ko wax bu dee nawet daan ko wax góor ñi ci boppam faaw ñu am ay soxla bal sax mu ñam ci ñaar góor bu nekk na am lu bari gis nga tey li fi ne ci ay jigéen yu taxawal lu bari lool beneen bi ci des mooy ñi nga xam ne dañoo aajowoo am borom kër bari lool ñi bëgg a ñëw bari lool ñi bëgg a fegu ka daali góor ñi war leen ci xam ay nodd mbokk boobu الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله maana maanaam buntu boobu damay faral di wax ni njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam bokkoon na ci leeral bu mu leeraloon àddina buy yeex bokk na ci ay mandarga mooy jigéen ñi ñooy ëpp góor ci fi ëpp giñ ko ëpp dina yegg ba ci benn góor juróom fukki jigéen mën nañ kaa toog ngir mu war a nekk seen borom kër maanaam góor ñi dinañ dem ba jigéen ñi danañ ëpp ba toll ndax loolu bari la ndax yërmaande mooy man ak sama borom kër kese du ma xajal keneen waaw fekk na sama borom kër ñeen ñoo ne wax ko ndax yow di nga am déedéet loolu du am bal sax nag li am mooy yàlla ci boppam subhanahu wa taala li muy lim damay wax ne xolam yi dañuy wàññi bu ne benn lay tàmbale ma ne ba mu des ci suñu borom waxul benn ñaar ñett ñeent suñu borom dañuy ñaar ñett ñeent bay xittum boo ragalee sa ragal koy wax dëgg yàlla ñu lay bëgg bu ragal ñeneen moo ko gën parce que borom dafa in xiitlu boo ragalee nga yem ci benn waaye loolu nag taxul nag benn waaye ci mel ni man juge bi amul dara amul dox lu li borom bi naan li jigéen ñi wax naan yow yaa ngi boot jëf la woo ngay wut loo ronkante waaye yoo xamante ni amul dara nan lay wut ñaar ci sama ma loolu de ku mën laa wax na def ku mënul sa yëg ñi bu jéemee ma nit na def bal sax kenn damay wax mbokk yi lii li ñu jot a lire ci seenu xalaat néew na néew na man boobu xaw ma kenn mën na maa xamul bari xaw ma kenn yow yow saxaaba ak kan yow kenn déet man kay ñoo dañoo weesoo sax am ñeen ndax ne seen jamono am jaam dama da leen ko am vingt trois soxna ñeen yi gor ak ay jaam ba mat ñaar fukk ak ñaar nga gis ko yëpp sa juróom ñaar lay fukk yëpp sa juróom mani la Mohamed bi ngeen xam baax yi ngay jël ci suba ko bi muy tuub li ñu yor ba na ñeen sax am na benn boo xam ne huit la ënd bi mu dikkee yëpp yàlla bi ne ko tànn naa ñeen ñi nga soxla ñu jël nga libéré la ñu dem kon jigéen ñi dañ am accès accès ci loolu ak yërmande ak sax sax jigéen ci ragal wuti ne bokk dëgg yàlla daa wóolu ko bopp ak kaay yi sama dama ko dal ci kenn xam nga daa wóolu sama tay kaay bu fekkee mën ngaa daw kay walaay da nga suñu yëg du bëri gis nga kon loolu jigéen ñi nañu xam ni maanaam jàngale yàlla la ak am yonente moo tax Aïcha radiallahu anha lii dëgg la ñoom mooñaale gi yàlla mooñaale jigéen jigéen moom mi ngi ci ñoom waaye di tee nag mbir mi daal kenn ku ci nekk góorgóorlu ragal yàlla ba pare nag fexe di jëf ay jëf yoo xam ni lam ci jublu maqsad ba awalan mooy am ngërëmal yàlla subhanahu wa taala ñaareelu maqsad bi nag mooy am ngërëmal borom kër ah waaw lu tax parce que yàlla moo tax ci yow nga am sa ngërëmal borom kër ngir nga am la aljana ngir nga am doom yu barke bal ngir nga am dugg neex ndax góor bu waaye boo ko jinnee teraanga dina mu fay la comme ni ko yonent yàlla bi dafay ak Aïcha radiyallahu anha kon dafa mel ne tomb bi ci topp xaw naa gudd buñ ko tàmbalee wax danañ gën a mooy innaka ibnatu abi bakr kon lu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu war ñu defal tawfiq defal nu ak yombal ak tawfiq ak taysir ba njàngale yi nga xamante ni mooy man di balluloo ci dund yi soxna yu màgg yooyu ñu mën koy jëriñoo hada wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi